similares. élection présidentielle yi day ah Macky Sall day ma nga ca élection maire yi ah ñemewu ko maa la wax ma ne la day waaw ma ne la kàddoom ma ne la président ma nga woon te waanu da ngay jëlee doon fa jaale nag njabootu ndem si yàlla alaaji buubu sow di imaam rati bu gox ba moom président Macky Sall moomee ah daal di nay jaajëfal nag waata ngay bu baax a baax lam li nga xam ne kon am nañ ko ci élection présidentielle yi day Macky Sall ne leen la may sàkku ci yéen daal mooy nii ngeen mel nii ngeen élection locale ya ah. vox populi ne en tout cas opposition bi day waaw mi ngi deuxième tour am de élection maire yi ba mooy deuxième tour ya docteur Atta Badji waaw ne waaw weeru décembre bi kay jàpp leen ne élection ya day prolongation ya fa lañ koy joué maanaam élection ya le quotidien yi ne kaa ne maître Aïssata day waaw nee bu doon moom ah, ah. day boole élection député ak élection locale 2019 ya day daal di koy def nag laa la ca Guédiawaye kay tribune day ma ne la ca xooteeku la jëm loolee mënul ñàkk tas fa di tasar ar di tali waaw waaw parce que nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Sall day ak Racine Talla ak la Diop waaw ma ne ña ngay laa la wax waa la Diop day waaw nee nañu Benno Bokk Yaakaar bu gañewul ca géejawaay googee maanaam amuñu cinquante pour cent waral dara lu dul Aliou Sall ah, ah. waa kër la Diop ne waaw Aliou Sall tax ba gañewuñu fii ci géejawaay laa la wax amuñu cinquante pour cent parce que ci boppam kon Aliou Sall lañu a waay waaw yéex ngeen koo def exclusive yéene kaay ne maire bu Ndakaaru Ndiaye Dia Diop waaw Moustapha Cissé day ak Abdoulaye Diouf waaw ña ngay reyante de maar dey taali maar dey taali Moustapha Cissé ne Macky Sall day bu gañee fii ci Nord Foire Ouest Foire jàmmalaay ak affecti waaw ginnaaw yàlla Abdoulaye Ndour la ak man mii Cissé Lo parce que Abdoulaye Diouf Sarr defu fi dara ca yàlla Abdoulaye Diouf Sarr ne ndam daal ku mu neex fabal ku ne am nga sañ-sañ ne ndam bi nga xam ne kon daaneel nañ ko Sall punkale mi nekk ci capital bi dañ leen a humilier de toroxal leen bañ ne totora laa la wax te moo ni day loo ëpp fukk ci ay ministre laa la wax ñi ngi nekkaaru njaay jël jóob ak ay directeur généraux société nationale ba ca première dame ba Marième Faye Sall dugal na ca ak ay milliards mais dara jël Khalifa Sall mi lé di koy tëj kaso jël ay punkaloo Khalifa Sall yu bëree bëri opération duxu daal di leen yóbbu ca mac Abdoulaye Wade nekk nekk complice ndakaaru Cheikh Ba Xum mi ngi ci ndakaaru Babel Diop mi ngi ci ndakaaru Abdou Karim Fofana mi ngi ci ndakaaru Cheikh Ba mi ngi ci ndakaaru Anta Sarr Diago mi ngi ci ndakaaru Yaxa Mbay mi ngi ci ndakaaru Aboubacar Sadiq Bey mi ndakaaru ñoom ponkali yëpp taxul Macky Sall mi la gañe ndakaaru day waaw transhumance yi bees yi faxamaan yi ah. waa ñooñu seenu ëllëg nag seenu ëllëg nag mbalit ma rek mbalit ma rek critique yéen kay ne Idrissa Seck day nangu ndogal nangu ndamal Macky Sall lii est-ce génn maa di taali ñu ngi ñi ko nañ leen a gañe day ña nga woon ca Touba xalif général murid yi day Serigne Mountakha Bassirou Mbacké nee na nangu ñu loole seen Serigne bi wax leen 24 heures waaye li bees ginnaaw élection yi yàlla bu coow am mardi tali waaw parce que nag ñi nga xam ne ko nañ leen songal di leen traqué di leen teg loxo dañu ne ci opposition bi li luy ndeem tribune tongal bi nga xam ne ñu ngi tongal ñu doon jàppale Idrissa Seck day waaw doy na waar boog sobli ne colonel réew mi waaw ma ne teg nañ ko loxo ma nga ca section de day sa waay samba yée waay samba te fekk loo ëpp kon fukk laa la wax ay militants yi bokk ci opposition bi tribune yéene kaay ne waaye moo tax it am na ay internautes yoo xam ne day di ngi fàttali Macky Sall kàddoom yi nga xam ne kon teg loxo bi nga xam ne ko loxo ndaw yi ne ci opposition bi ak jigéen ña waaw Abdourahmane Sow ak yo ma àndal yemuñ ca ndaxte nee nañ danañu xeex ak wàllum jaay doole gi lee di wàllum dictature wàllum tii dalaata gi lee yorub bi daa méngoog résultat yi jóge ci commission départementale de recensement des votes Moustapha Cissé Lo ci sut saa waaw ne Khalifa Sall Karim Wade bu ñu bokkoon ci élection yi day Macky Sall deuxième tour la jëm aha ko wax directeur ba ne Macky Sall day bu amee ndam te njaareem kay na ko gërëmee Birima Mangara parce que benn waa ji proximité sociale jabaram maa jigéen mu bambaa nga ca betu njaareem yaa ngi Mbacké ci tribune yéene kaay waaw tax ñu am fi lim fi am de Seydou Gueye porte-parole APR ci Le Soleil yéene kaay waaw nee résultat yi mais askan wi wax le peuple abarle lii daal lañu war a jàpp njiitu réew France Emmanuel Macron day daal dina félicité président Macky Sall konte ndam la waaye yorin gi doño waar libération yéene kaay ne Abdoulaye Bibi Baldé day ak Cheikh Bakhoum waaw ak marché wu ay milliards yu ñu jaglelee kon away ah guerre bu mitee am ci kaw de lu doy waar parce que ministre des télécoms day ëpp na su dee ARMP nag daa toog ci ay rapport 2017 2018 waaw IGE ak Cour des comptes ak OFNAC ñoom moom gëj nañ fi depuis 2016 eh sama eh way ba nii ñuy adoon ni lée nga xam ne OFNAC waaw la fi président Macky Sall ko taxawal day ñaari rapport dong la fi publié waa léegi kon genn wàllu milliard 500 millions budget bi ñu leen jagleel ñoom waa OFNAC ban njëriñ la looloo jaralaaj Ibrahim Seck forum civil ne xam nga lu ci gën a doy waar Cour des comptes bi nga ne kon ñi ngi nekk ak Macky Sall day dañ leen a jàpp loxo ci poos waaye ñi ngi remboursé ñi ngi remboursé waaye yan rapport ñoo jàpp nag pungal yooyee di ay dijiteeru Macky Sall dañuy remboursé sa suuf yan rapport la xaalis boobee tamit nan la tolloo <laughs> alaaji léegi daal li maire yi naan amba en arrière léegi daal ay kaas ay morsoy xonq ay ñaxtu ay wàcc ci mbidd mi ay dëkk bi dafa makki mbir mi dafa miti yooyu moom moo fi jeex boo paree ma ne la alaaji tëjal